ma ni kii xëy na am na lu mu eh, man musuma xalaat ni gendarmerie dinañu ma fekk foofu di may jàpp parce musuma dox li nga xam ne lu neexul yàlla d'abord mhm. avant may dox lu lu neexul doomu adama yàlla musuma dox ci lu neexul yàlla ba ba gendarmerie ñu may léegi waa ji dafa turne mu taxaw xool sama xel ñaaw mais ba dara mais ma ne dina leer si kanam rawlu bët yàggul même pas dix minutes benn casque taxaw sama yoon ñu ne ma yow yaay diw ma ne la waaw ñu ne ma kaay wuy ma ne wuy ñu ma commande ma ko dew ma fen man wóoruma ni gendarme ay ay gendarme la ma ne dew ma fen mu ne ma kaay wuy commandant man na ko sa waaj xoolal fen bu leen yàq si liggéey jàmbur yi quoi ma kaay wuy mu woon mu génne carte bi woon ma boobu laa ne ah a séen damaa ne woon du ma dem tant aw ma convocation parce que Sénégal convocation lu yoon bu lay woo da lay jox convocation loolu man laa xamoon loolu laa doon si loolu laa daan gis mais ni ñëw taxaw si samay tànk kaay wuy damaa ne woon du ma dem mais bu ma woonee carte ñu téye ma foofu dama dama ko ne lu ma gën a nakari du yóbbu bi. lan ma gën a nakari lu ma gën a nakari bàyyi sama magasin tëj boobu xamuñu man lu ma amee sama alal magasin bi noonu laa ko ma dem ñun fii boo añee kenn ku ne boo añee ba pare ñëpp ay dugg si kër yi di toog di di toog di toog ay di ah, xëy na ñii di naan ataaya mbedd bi day wéet ma ne ko euh, monsieur le may ma ma tëj magasin bi ñu ne magasin bi doo ko tëj ma ne ko pourquoi ñu ne ma doo ko tëj ma ne mais instant yi mbedd bi dafa wéet kenn nekku fi ñu ne magasin bi doo ko tëj ma ne aha bu ma xëccoo ak ñoom si leen parce que respect laa leen jox ma bàyyi noonu magasin bi dem sama njaboot di may wóor ba ñu fekk ma brigade de recherche guddi loolu métti na est-ce que lii est-ce que réew bu bu wootee développement Sénégal bu wootee émergence est-ce que ñee lay doxee xamoon nit ki nu mu amee alalam nga ñëw fekk ko fu mu muy liggéey nga foofu yóbbu. léegi bi nga demee gendarmerie brigade de recherche lan moo xew ci sa enquête ak ñoom ndax wan nañ la ay preuve am na ay photo wala ay vidéo yoo xam ne tegal nañ woonuñ ma dara dama leen laaj yéen lii li ngeen may laaj nii foo leen ko jëlee ñu ne eh, dañu leen ko dañu dañu leen yónni ma ne lu ngi leen yónni ñu ne dañu leen yónni pour ñu jàpp ma ma ne aha ñu ma ne waaw ma ne mais man def ma dara man xaw ma benn kër autorité Moussa Sy bu nekkoon foofu mer sa passé la ay temps musuma xam këram soxtuma bay jaabate ay kër jàmbur man xaw ma kër benn autorité bay yebal ay nit bay recruter ay nit pour dem toj kër ah <coughs> mais loolu kese la ñu yem après ñu indi mag benn maître benn avocat parce que man musuma lijjanti affaire avocat parce dama sama adduna moom dam dama kaa jubal moo tax xaw ma benn avocat ñu ni ma benn waa ji un certain euh, avocat ñu ne ko maître Babacar Ndiaye ñu ne kii mooy sa avocat ma ne waaw avocat ma ne man jëluma avocat parce que lu may doy avocat ñu ne ma kii mooy aha ñu ne ma waaw d'accord ñu waxtaan waxtaan waxtaan après moom mu dem ñibbi ñu bàyyi ma foofu le 31 mai la ñu ma jébal fii tribunal. tribunal bi nga ñëw tribunal ndax jot léegi ma ñëw wala lan moo xew ci biir. tribunal man de buñ ma yóbbalee buñ ma joxee tribunal euh, juge bi. Euh, président Ousmane Sonko du nii lañ koy liggéeyee ñun buñ koy liggéeyal dañ koy liggéeyal sur le terrain dimbale nit ñi ñu dem inscrire inscrire euh, si la fiche électoral pour ñu mën a am carte d'identité bu bés bu jotee ñuy dem sandi ku ñu bëgg sandi carte nit tamit boo ko doo ko dimbale ba pare nga forcé ko ku muy waxte loolu amul man man kiiwuma noonu. dundee si biir kaso bi. vraiment kaso bi moom vraiment maa ngi sant ñu fa nekk maa ngi leen sant maa ngi leen sant di ñaan aussi képp kuy patriote foo mun ta nekk ngir yàlla ngir yàlla dama lay ñaan si jëmm rasul foo mënta nekk nga wonew yar ak tegin surtout pour nga mën a bokk si société foo mënta nekk loolu moom vraiment man dinaa ko dox dama ne su génnee si kaso bi dinaa ko dox parce que gis naa ñu bëri ñi nga xam ne vraiment man nu ñu nu ñu dundee moom aw na maa def mais nag xam naa ne moom des fois peut-être euh, euh, kaso bi moo moo leen jàpp su kaso bi day jàppaate day dafa métti. ñaata at nga am métti maa ngi am 42 ans. maa ans 42 sa njaboot sa soxna ñi nga bàyyi woon na la ñu dundee sa nee naa nañu muñ nee naa nañu muñ bu bés bu jo bu bu naree jeex day jeex waaw ñi ma bàyyi si prison bi vraiment maa ngi leen sant euh, garde yi fa nekk vraiment maa ngi leen sant di leen gërëm. fan nga mës a gis euh, di nga nekk si benn société des fois directeur bi pour nga gis ko problème mais directeur bi ku ma bàyyi fii nii wax dëgg yàlla moom jafewuñu ko may dëkk. d'accord bu may génn ni station bi sax joxante nañu loxo si bunt bi ñu bi may ñëw loolu moo ne vraiment daf ñu téye man de man man maa koy sant. d'accord damaa dem ba nekk foofu employé sax di liggéey nag baax bu ñu baax firi bu firi ñoom. adjoint bi sax dafe moom ak directeur laa joxandoo loxo fii bu may génn si bu doon keneen sax ah bu dee yeneen directeur bi yàlla maa ngi sant aussi garde yi garde yi ñoom en général ñoom ñu ma ci kenn waaw naa ne instant moom ñu ngi may déglu mais maa ngi leen sant di leen gërëm kontaan naa si yéen trop da ngay si seen projet bi nga xam ne da ngeen ko tàmbali wala da ngay bàyyi nii instant moom euh, sama place aw woon kenn ku ma mais yaakaar naa ne ku ma fa ku fa nekk noonu su ma demee xool ni liggéey ak moom mën na mu ngi koy mëne moom léegi damay gën a dugg si terrain bi nag mais du question pour yàq de ñun Sonko yàqul fenn ñun dañ ko bëgg a jàppale si du jour élection yi si sinon sa avant élection yi lu terrain bi laaj dañ ko koy jox ba mu jeex tax mais du violence ay yooyu ay yooyu déedéet ay sax déedéet déedéet loolu moom loolu moom doxalu réew mi waaw loolu moom képp kii nekk bu nekk mhm. ay yàq bu yóbboo bu yóbboo euh, man mii sax su ma fekkee ngay yàq du ma ko nangu waaw dama la teg si yoon ñaatee côté poste Thiaré léegi si lañ dema yow eh, li ko dalee si sa poste ba jàmm gën si Kamba yow yaa koy taal te man loolu xam nga rek mooy loolu war nañ la ay preuve sa ay photo wala ay vidéo yoo xam ne da doon taal dara lañ ma woon lu dul jàpp ma sib sone ma jàpp ma yóbbu ma léegi yóbbu woon non man dañ ma yóbbu police ginnaaw raay dóor ñu fa nag dóor ñu fa ay dóor yu metti gis ngeen lii yëpp gis yii yëpp voilà gis nga yëpp si lañ ma ko defee fii. dóor ñu ay dóor yu métti ku dóor dóor ñu ay dóor yu méttee méttee métti. dóor yi lan ko wund dañ leen doon laaj ngeen bañ a tontu dañu dañu doon laaj ñu ne la ñu def ñu dara dañoo ñoo romb yóbbaale ñu dañ romb jàpp ñu yóbbu ñu def ñu dara dañoo xool ba ñu neex leen ñu jàpp ñu dañ lay romb rek dogale la takkal la mu nekk te defoo dara fekk ñu si yow dara lu dul. photo président Ousmane Sonko si ay écran ak ay groupe whatsapp président Ousmane Sonko ñu ne lu tax ngay bokk si ay groupe whatsapp lu tax ngay def sa téléphone photo président Ousmane Sonko loolu lañ ñu jàppee. d'accord léegi ñu leen dóoree ci euh, seen garde à vue moo xew. après tëj ñu fa deux jours violon dóor ñu fa ay dóor yu métti xëy jël yem ñu si oto. man nag ñu ma doon dóor jàppewu leen ay ay ay gendarmerie jàppewu ma leen ay policiers dama leen jàppee ay homme de tenue yoo xam ne dañ leen a solal maanaam ay nervis yoo xam ne dañ leen a solal tenue pour ñuy dóor askan bi pour ñuy dóor ñeen boo waxee ñu ne la non yéen a fi woote gassa gassa kon dañ leen ñu non lii lañ ñu jàppee te ñu fa deux jours di ñu torturer am na benn góor dañ kaa dóor ba faar yi toj mujj bi commissaire bi moo ne leen ci boo leen ko